محمد من الإله بالرسول أدعو ما سلم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 allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum assalaamu aleykum الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم توسعة وتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والزرق والنفاق والإملاق سيدنا محمد وآله وصحبه سوي الوفاق wa ala man tabiahum bi ihsaanin fi jumlatil afaaq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yëpp ñoo ngi baalu àq ñëpp tey baalu àq ñépp di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu nangul nu sunu koor gi ñu woor ci weer wu sell wi ñu génne te jéggal ñu suñuy bàkkaar ñun ñëpp te boole ñu ci xaaj bi jëm déwén di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni moom mën a defar jëfit lépp luñ ci yàqule ci jëf yàlla na ko suñ borom mottali wala ñu ko ca jëfi gaa yu baax yi bis tey nag bis la bu am solo ci dundu doomu aadama rawatina ab julit te mooy bis boo xam ni doomu aadama bi nangu woon na ndigal lu ko yàlla digaloon ba mu jëfe ko ba matal ko kon nag jëf jooju nga xam ne yàlla tegoon na ko ci ñun ba mu mat sëkk yàlla mi mën a nanguy jëf yàlla na nañu ko nangul mbokk yi ñu ngi leen di xamal ni xutba bi tënk na lu baree baree bari ci sëñ bi dénkaane yu bari yoo xam ne daf koo digle ci naka la ab jullit di mel ci bis bi ak naka la ab jullit di mel bu jàllee te lépp li ko tënk du dara lu may ragal sunu borom ragal yàlla ci jëf joo mënti jëf mooy li ko jiitu démb ak tey ak suba kon nag li nga xam ni génn nañ ci weer wu sell wu màgg ba nga xam ni tënkoon nañu saytaane dafay mel ni seytaane day daal di tënkeeku kon nag nañu bàyyi xel ni lépp lu ñu doon def ci lu baax wala lépp lu ñu doon def ci jaamu yàlla na mel ni nañ ci gën a góor góorlu ak jëf yoo xam ne suñu borom daf koy tànn moo tax sëriñ bi doon wax ni mi ngi dénk di dénk boppam mbokk yépp mi ngi leen di dénk nañuy moytandiku iñaanante di moytandiku it tàqalikoo di moytandikoo noonante ci lépp loo xam ni dafay jur ab yool wala dafay jur ci lu baax nee nay tedd nga kenn mënu koo am maanaam wala lu baax te àndut ak ragal yàlla nee na tedd nga soo ko bëggee rek da fës fas yéene nga am ànd ak ku ragal yàlla nee na képp koo xam ne jublu nga sunu boroom ànd ak wommatu ci li nga xam ne moo di jub te jub mooy nga def ragal ragal yàlla gu baree bari ci sa xol nee na dafa mel ni jëmee nga jàpp nga ci buum goo xam ne si ni du dagg nag nañu fonki tuub digle na ko bu baax a baax a baax tuub bàkkaar yi jéggulu ci sunu sunu sunu sunu lépp loo xam ne ay rëcc rëcc la te moytu di génne ndiku ci lenn loo xam ne dafay waral ciw làmmeñ lu lay waral jural ab bàkkaar rawatina nag ci jamono ji ñu nekk nga xam ni dafa mel ni wax lu amul dafa sax te mooy li ñuy wax wax loo xam ne du nekk jullit bu nekk war na koy moytu kon jullit yi ci jamono ji ñu nekk ñu ngi leen di digal di dénk sunu bopp it ñu moytu lépp looy génn ci saw làmmeñ nanga ko natt xam ba xam la cay dëgg nga mën koo génne la ca du dëgg nga maanu ci ndax ab jullit la suñu yonante bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni na ngeen di moytandiku di wax lu amul mais eh, da ngay féetewoo di wax lu amul di wax lu amul di wax lu amul bañ bindal la nga nekk waxkatu lu amul mu ne bu boobaa lan ngay jige da ngay jige sawara te da ngay dem ba yow mi nga xam ne da ngay wax lu amul dafay mel ni da nga dem léeg-léeg nga dégg nit ñu naan kat anamu ko wax ñu ni diw la ñu ni diw moomu wax lu amul a tax bañ bañ màndargal ko wax lu amul bu waxee sax dëgg kenn du ko gëm moo tax mu digle woon ni na ngeen di góorgóorlu ci wax dëgg ndax nee na dëgg dafay wax dëgg day bijji jëmale ci aw yiw day bijji jëmale ci àjjana te àjjana it nee na booy wax di dëgg di wax di dëgg day mujj nga nekk wax kaatu dëgg nga xam ne même boo waxoonu safaan sax dañ naan ko wax dëgg ki moo ko wax kon nag nañ góorgóorlu ci jamono jii ci lu mu nekk ñu moytandiku it bu baax li ñuy wax ci jamono ji mooy ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe woon wala sunu borom digal nu ko te mooy fonk sunuy waajur liñ ci jublu nag waxuñu ndax nit ku ne mën naa fonki waajur waaye fonki waajur yi jàmbur a tax maanaam ba lépp looy yëkkati di ko teg ci say waajur waajuru jàmbur nga xam ne teg nga ko ci waajur teg nga ko ci say waajur yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ni na ngeen di moytu di ŋàññi seeni waajur ñu ni ana nan la ñuy defee di ŋàññi suñuy waajur mu ne ngeen di ŋàññi waajur yu jàmbur yi maanaam saa booy ŋàññi waajur yu jàmbur rek baat boo yëkkati teg ko ko rek na la wóor ni ŋàññi nga say waajur te yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni loolu dafay waral mbugalum sawara kon fi jamono toll nga xam ni nga wax ji ñaaw na lool jëf yi ñaaw ci yu baree baree bari ci dem lente beeg fekk lente bi xastante bi ci média bi ci yu baree bari nañu koy moytu ndax lépp looy teg ci waajur sa waajuru waajuru jàmbur yaa ngi koy teg ci sa waajur kon nañu ko nañu ko nañu ko nañu ko nañu ko moytandiku bu baax a baax te góor góorlu ci lépp loo xam ni dafay jublu ci sunu boroom ndax nañ ko waxee woon fii rek adduna moom kenn ku ne mën ngaa xool kala meññ sa ñetti maam yi yàlla yàlla jiitu rek kenn nekkatu fi di dox te ala kulli xaalin da leen di fekk kon nag na nga góorgóorlu ci xam ni jëf lu baax nekk ci lu baax loolu rek moo am solo te ñu wëlbati ko it fonk ñi nga xam ne ni ko sëriñ bi bëggee ginnaaw dañu toolam bi alquranul karim moo di toolam bu fekkonte ni dafay wax ni am na tool alquran moo di toolam ñun ñi ngi leen di dénk yéen mbokk yépp ngeen jël seen doom yi gën leen a xirtal ci ñu dem jàngi alquranul karim te ña lay jàngal alquranul karim it ngeen def leen ñu ay sang ci yéen topp maanaam daara maanaam bu tax na Tuubaa fii dañoo wax ne ab usine la alquranul karim mooy usine bi maanaam ñi fiy jàngale alquranul karim kenn gënu leen a jige sëñ Tuubaa bu sëñ Tuubaa ñëwoon it yaakaar naa di di di seet ñu muy nekkalat ñu muy dalat ñooñu lay dem seeti mooy jàngalekati alquranul karim yi kon nag mbokk yi nañ leen lu ñoom de yayoo nañoo jox lu ne yayoo nañoo am am lu ne yayoo nañoo nekk fu ne ndax ñoo nekk ci li gënal sëriñ Tuubaa kon nañ leen góorgóorlu bu baax a baax te yar xale yi jàngal leen alquranul karim ndax dënn bu mu jiitu dafay mel ni boo fa bëggee def leen dana yomb te suñu réew mi ni mu mel nga xam ni xastante bi saagante bi lekk lu warul lekk riba ni ñu koy waxee ak yeneen ak yeneen du may dara lu may ak ragal ñàkk ragal yàlla la rek waaye bu alquran jiitoo ne ko sëriñ Mortada bëgge woon ñu jàngal leen fexe ba bu ëllëgee ingénieur bi wala avocat bi wala ku man doon minbar bi àtte ba noppi dem ci doon imaam nga xam ne ak ragal yàlla dana jiitu ci moom dana man di liggéey nekk mécanicien wala mu liggéey leneen fekk alxuraan yi dugg na ci xolam bu baax lañ lañ koy mane nag mooy jullit ñu góor góorgóorlu ba liy fëkkee bañ a fëkk sunu njaboot ñu gaaw yóbbu leen ci ñu jànge alxuraan jàngal leen diine ndax kat ëllëg kenn ku ne ab sàmm nga te danañ la laaj lan nga doon sàmm fexe na ba bañ la laaj lan nga doon sàmm ci njaboot gi lan nga doon sàmm ci kër ga lan nga doon sàmm amoo lenn loo ca mën a layal su boobaa sa doom mën naa taxaw yey la kon nag na nga góorgóorlu bu baax a baax a baax ci ñu jubbantiku jubbanti njaboot gi fas leen a jëmale ci li sëriñ bi bëgg te li sëriñ bi bëggit mooy ñu fexe ba jàngal leen alquranul karim te it bañ di jëfandikoo dara ci lu du àndut ak ndigal ndax kii fi ne yàlla na ko fi suñu borom yàggal te mooy sëriñ Muntaxa al Basiir yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te ànd ak wér képp ku muy sa kilifa war ngaa góorgóorlu ci baax war a góorgóorlu ci nangoo jëf wala góorgóorloo ci nangoo jaamu yàlla waaye wala góorgóorloo ci noppi moom day lu mu jox sëñ tubaa doyu bu xëyee di joxe ba jant so di liggéeyal sëñ tubaab boo xoolee jëmm ji day mel ni ku beesaat teq ci war koo liggéeyal kon nag ku mu nekk sa kilifa na nga góorgóorlu bu baax a baax a baax ba lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci lu baax nga bañ koo nga bañ koo nga bañ koo néewal te góor góorgóorlu ci bu baax ñi ngi ñaan yàlla noonu suñu borom jéggal suñu bàkkaar yëpp di siyaar it ñi nga xam ne ñooy kilifa yi te teew ci jataay bi bu buñ ci tuddee sëriñ Aafiya ak sëriñ Fallu sëriñ Jasaaka jenn moom sëriñ Abdou Latif jenn ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne si ñoo fi nekk di ziar ñi nga xam ni ñoo fi nekk di sëriñ daar yi nga xam ne ñoo doon taxawee liggéey bi ak imaam yeeg ñëpp di leen baalu àq di leen jéggal di jéggalu ñaan ngeen jéggal nu suñuy rëcc rëcc ci yéen ba muy rëkk rëq-rëq dëkkandoo barkeb sëriñ Tuubaa wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amin amin amin na amin yàlla na na nga fi yàgg yu bëri amin amin amin moo gën yàlla na amin amin amin